lan moo leen dal et puis je me pose des questions sur l'opportunité de ces opérations euh, opérations qui génèrent beaucoup de beaucoup de violence mm-hmm. euh, euh, yow le 17 euh, dañu le 17 avril mu am ngont bu méttee métti ñu ne c'est des hommes du maire ak les commerçants marchands ambulants tabliers mm-hmm. mais man au début quand j'ai vu les, les images dama foogoon ne c'était les images de 2021 ou de 2023 pour man manipulation la les images de ces affrontements là c'était d'une violence effroyable hmm. euh, ñu ne maire bi dafa ñëw di déguerpir les les les marchands les marchands ambulants ñoom ñu opposé résistance hmm. euh, qu'est-ce qui s'est passé non je pense c'est très simple bu tali marché boobu lu ko dalee Padois ba Camp Pénal bi may uti mairie bi en 2014 sama objectif principal moo nekkoon tali boobu lépp lu fa nekk ñu dégager ko pavé ko def ay làmp yu bees ba kenn xamul foofu lu muy niroo foo amoon na des constructions en dur ci kaw trottoir bi ay bâtiment yu ñu tabax ci kaw ay ay ay ay en en dur ay briques def fa lu nekk bi ñu ñëwee en 2014 lépp la ñu dégager mu set. ma ne leen dama ko bëgg pavé def fa ay lampadaires yu bees pour au moins mu changer xar-xaru kanamu Grand Yoff parce que foofu mooy Grand Yoff aussi bi ñu ko defee pavé ko lampe yu ñëwagul commerçant yi lal fa ma yëkkati leen heure bu ñëwee daal la mu leen yëkkati yëkkati naa leen plus de six fois du tey rek du biir kese ñu def ñëw installé ay lampadaires yu bees man il faut ñëpp dégage tali bi mu leer parce que li am solo su suñu mooy tali boobu ni mu meloon jaaduwul piétons yi amul fu dox. oto yi dañuy mbëkk nit ñi parce que nit ñi si kaw tali bi la ñuy dox ñooñu nañ ko désencombré kooku amul amul lu si lu nekk lu grave d'autant plus amul kenn ku fa toog di fay OVP amul. occupation de la voie publique. amul 2014 ba tey. commerçant yi yi fa nekk 2014 ba tey. kenn fayul OVP mosuñu fay. OVP taxe occupation sur la voie publique. déedéet la taxe journalière la ñuy fay mooy juuti te boobu. le père là le nouveau père bi mu ñëwee Wagué Mohamed Kisima Wagué bi mu ñëwee la ne daf koy jël parce que moom du bàyyi juuti bi di dem même juuti daawuñu koon fay après si la Wagué ñëw nañ nañu fay juuti mais ku lal ku ku ñu bàyyi si mbedd nga toog fayoo benn benn la sur l'occupation su la voie publique c'est parce que xam nga fi nga toog jaaduwul donc joxe ay sommation ne leen après Korité le 13 nañ dem bi ñu corté ba le 13 demuñ set 17 lañ doog dem pour dindi la kon violence on fa place li ma jàpp boobu amul waru am violence bi ma déggee ne am na violence maa demal sama bopp waxtaan ak ñoom xamal leen fi ngeen laal du lalukaay waru am violence mais mais violence bu amee c'est qu'il y a deux camps qui s'affrontent. oui moo tax moo tax ma ne ah. la warul am violence. parce que waaw mais waaw mais nan nga mener les opérations. non amul nu ñu ko mënee dañ leen jox sommation dañ la treize ngeen dem bu fi après Korité gi Korité gi ñëw dangeen ngeen dañ leen bàyyi ngeen jaay ba pare. Korité c'était le onze. waaw te Korité rek ñun ab Korité rek la ñuy dagg ay place pour nit ñi ñu bañ a xoo ci biir bañ a xeex ñu dagg ay place ku nekk am sa place à part Korité kenn du fay ñaar dërëm Korité pare ñu ñu leen nañ dem le onze le treize nañ dem le treize demuñu le dix-sept lañ ñëw pour désencombrer pour am coow. waaw mais. Euh, boo leen ñëwee tamit yéen au lieu ngeen sukkandiku ci force publique il semble que da ngeen ñëw avec des bras armés. musuma dinaa ko ak ànd ak police. waaw mais loolu mooy mooy loolu mooy li yoon. déedéet xam nga loolu mooy yoon da ngay appuyer wu sur la force publique. sur la puissance publique et non. Euh, ñoo xam ne ils ne sont investis d'aucun mandat en tant que euh, agent de sécurité ñëw taxaw bëgg ne comme ay commerçant jóg leen. non non désencombrement. prérogative bu commune la prérogative bu maire la. mais da ngay mën nga appuyer wu. non police day accompagner rek. d'accord day accompagner kese. mais loi bi waxul ne su police ñëwul amoo droit def. non non non bi may déjà commettre en 2014 on avait tout préparé avec le commissaire central de l'époque ak le sous-préfet des Parcelles Assainies de l'époque bi ñu toogee waxtaan ba pare ba lépp pare le jour J bi ñu waree commencer le préfet Dakar Alioune Badara Diop si je me trompe. daf ma ne opération mënul am tey parce que jeune police du ñëw ma ne ko mais naa samay matériel ba pare il faut mu commencer mënu mënoo doo am police ma ne ko non soxla ma police damay désencombré parce que ñëw naa ba pare ci désencombré sans la police mais ñëw rek pour accompagner ma pour am pour am am am xeex. mais ça oui. voilà maintenant maintenant bi amee problème ma dem waxtaan ak booy dama leen ne carrément amu leen droit ngeen résister parce que jox na leen jox ne leen ngeen dem le 13 le 13 demu leen ñu ñëw le set di leen yëkkati tout le temps damay négocier ak ñoom dañuy jël seen bagage yi ñëw ñu waxtaan ñu xool naka la ñuy naka la ñuy organiser waate mais ni mbedd meloon jaadu woon il fallait ñu xoolaat naka la ñuy réorganiser waatee marché bi pour nit ñu mën a dox. mais ñoom euh, certains avec qui je me suis entretenu sur le sujet dañ ne depuis 2014 ba ñu la falee maire ba tey yaa ngi def ay déguerpissement coow mosul am. Mhm. amoon na coow kay. co xeex lii lii nii. amoon na coow ah, njëkk bi. waaw dañ maa sànni xeeroo ma soom ñu ne ni nga doxalee la ak ñi ci àndal. loolu moo tax noonu laa doxalee euh, da nga ñëw ak say bras armés. non c'est faux. ah c'est faux da nga ñëw ak say bras armés. non c'est faux ñu attaqué leen amul amul c'est que ñëpp ñu ma fi yóbbu ay agent commune lañu ku dem mairie fekk leen ci fichier commune ay agent mairie Grand Yoff lañu mosuma ànd ak kenn ku dul agent bi désencombré du ma ko def musul am ñoom xam nañ loolu sax ñu fa ñëw ñëpp ay agent la ñoo fay nekk tout le temps li ñu renforce mooy yeneen yeneen yeneen yeneen agent yi xam ne nekkoon si yeneen secteur lañu indi en renfort pour ñu accompagner. mais justement ñoom xamuñu xamuñu ñooñu. non bu ñu xamul rek ñoom xamee nañu les agents de la mairie yi daan ñëw mais dañoo xëy gis si ñeneen. et que ñeneen ñooñu aussi comprendre ñu. Euh, contexte bi situation bi Grand Yoff kenn mooy diriger opération de raccordement mu ngi tudd Amadou Ndiaye l agent yi renforce renforce ñëw en renfort moom mooy jiite opération donc loolu mu ngi mel ni tey nga indi ay renfort jemi rek mais toujours comme bi ne Grand Yoff mooy jiite opération am na commandant noonu la demee amul leneen te man li ma li ma ñaawlu mooy loolu am parce que ambulance sama njaboot lañ agent yi sama njaboot lañ ku si gaañu maa perte kenn perte kenn perte moom maa perte ndax sama ñaari njaboot ñoo daje am ñu si gaañu. te loolu dama ko ñaawlu. ak ñu ci yàqule. non gisuma ku bagage am yàqu parce que ku ñu jël sa bagage dañuy bind sa tur bind li nga li ñu jël si yow soo ñëwee ñu delloo la ko bu ñu la ko war a def dañu ñëw ñëpp démb mairie fekk ma fa dama jox leen seen bagage dañu waroon fay contravention may leen liggéeyuñ douze bu ñu fay dara nañu yóbbu seen bagage mais nañu bàyyi mbedd mi. kenn fa ma fa nañ nañu bàyyi mbedd mi loolu laa leen di ñaan parce que mbedd mi aussi foog ñu di defar ko nit ñi dox ci kaw trottoir yi trottoir pour nit ñi la vo euh, chaussée bi pour oto yi la marché yi pour nit ñi jaay la c'est la vérité man nag Grand Yoff dama faa dëkk foog ma defar ko su ma ko defarul ku koy defar ma fa laa dëkk mënu ma dëkk mënu ma gën a Grand Yoff su ma cuunee ba defaruma Grand Yoff tey beneen maire bu ñëw bu ko liggéeyul maay perte maay perte parce que dëkk génn ma fa sama bopp laay liggéey mais mais pourquoi engager quand même man man contexte bi dafa poser problème. contexte ba ban contexte. oui le le le contexte c'est-à-dire on sort à peine d'une élection euh, pourquoi engager dans ce contexte-là des opérations de déguerpissement mu jur violence euh, ba nit ñi tàmbali di tiit. élection yi daa amul coow justement. est-ce que le pays se est-ce que dëkk bi est-ce que dëkk bi dafa am dafa am trouble à l'ordre public ba tax kenn warul def sa liggéey amul coow. pour buggaan bëggoon yëkkati temps est passé bref dañu ne noonu non instant bi kenn mënul yëkkati parce que coow lu am si dëkk bi moo tax bëgguñu bëgguñu ñu def lu ñaaw profité aussi yàqal commerçant yi seen i bagages mais fii dara nekk ko fi c'est que il faut pas ñuy ñuy légalal lu légalul trottoir yi moom. il faut ñu def suñu kamtalaay kàttan ba piéton yi am fu ñu dox loolu moom lu ñu mën dañ ko ci def ak yar ak teggin ak yërmande mais lépp loo xam ne yoon daf ñu ko may daa ñu ko jël mais ànd koog dal ak yar ak teggin. léegi euh, euh, Madiop monsieur le maire y a Cheikh Mbacké Sarr mm. il est en ligne. Mm. Cheikh Mbacké Sarr moom mooy le président du groupement euh, des marchands ambulants de Grand Yoff et de et de et de Padoua. Hmm, Cheikh Mbacké euh, donc euh, Cheikh Mbacké Sarr euh, est-ce que yaa ngi ñuy recevoir bonsoir Cheikh Mbacké. Cheikh Mbacké Sarr bonsoir. Euh, alors Cheikh Mbacké Cheikh donc euh, Cheikh Mbacké Sarr ne pas encore en en en en ligne euh, alors opération de déguerpissement d'accord pour libérer la voie publique d'accord <laughs> pour <laughs> assainir euh, <laughs> l'environnement euh, d'accord euh. mais xam nga yéen maire yi da ngeen di jël gars yi di jël ci ñoom ay tax di leen fayloo ay taxes. combien de taxes. leen fayloo taxe mm-hmm. man am na ñu ma ne ñoom euh, place yu ñu occupé euh, trente mille la fay. Grand Yoff waaw. ah bon nañu génnee seen nañu génnee. trente mille la ñu lañu ñu la fay. kañ. c'est-à-dire dafa mel ni affaire bi dafa am paradoxe ki nga xam ne dafa installé wu fi nga xam ne waru faa installé wu est-ce que war nga koo laaj taxe après nga xëy un beau jour nga. nga nga nga bëgg koo nga bëgg koo déguerpir amul kenn ku fay OVP 2014 ba tey laa la wax bu ñu fayee taxe korité gii la ñu fay Espagne uko korité chaque événement dañuy dagg ay place gars yi jàmm parem seen korité la 2014 ba tey kenn fayul benn OVP occupation sur la voie publique kenn fayu kenn fayu taxe bi ñu fay mooy la taxe journalière juuti la juuti ku teg sa buntu kër di jaay da nga war a fay juuti mais ñoom euh, dañ ma ne bi nga lancé pavage bi ne dangay defaraat donc nañu jóg ñoom dañoo jóg amul benn problème euh, ils sont même ah, jóguñu de. Euh, jóguñu ay xeer lañ ma sànni ay xeer. ah ay xeer 2014 ay xeer. <laughs> non waxuma 2014. waxuma non 2014 laa defoon bu mag yi des yëpp amatul amatul dina ko wax yëpp damay ñëw ne leen yëg leen ngeen jóg boobu rek moo boobu rek moo metti woon. dañuy jóg nee na jóg leen ñu jóg ba pare aussi may leen pavé ba pare il faut ñu xool ban format la ñuy utiliser mais fu am espace pour les piétons parce que piétons yi fu ñu jaar